salaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di ziar di leen baalu àq wante di leen baal àq ku nekk xam na ne ci weeru sell lañu jóge muy weeru koor ñu ngi baalu ñëpp àq di ñaan lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko borom bi nangu lépp luñ ci naafi la yàlla na ko borom bi nangu barki Seydina Mohamed di kontaan ci ànd bi nga xamante ne bii yéen a ngi koy ànd ak Leewtoo TV mbokk yi nekk ci biir réew mi. waaye rawatina mbokk yi nga xamante ne bii ñu ngi bitim réew ñu naan ko jaspora bi dañoo génn daani doole lépp luñ fa wuti yàlla na leen suñ borom yombalal suñ borom yombalal leen ko ba ñu gaaw ñibbisiwaat ci seen i njaboot ñu ngi gis commentaire yi nga xamante ne bi yéen a ngi koy def ak topp bi nga xamante ne bi yéen a ngi koy topp Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di leen kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun naan leen yéen ak yéenay suñuy doole tey nag ñu seet si suñu xarit suñu soppee wante suñu kóllëre di nit ka nga xamante ne bii di nit ku baax ku ne xam ne ne tey bisu ziar la di bisu korite ñu seet si ko ziar si ko fas yéene tamit waxtaan ak moom ci fànn bi nga xamante ne bii ci lay yëngu suñu borom may ko ci lool muy borom xam-xam ba nga xamante ne bii kenn dootu ko lam-laamee ci réew mi wante kenn dootu ko lam-laamee ci bitim réew suñu xuuseeg moom ci biir waxtaan bi mu ngeen gën a xam fan ak fan la dem ci biir réew mi ak fan ak fan la jaar nettali ci gémmiñu borom la dàqe mu ngi tudd sëriñ amar Diouf borom léppay baax di jëmm ja nga xamante ni bii nee na ñàkk gisante ak moom wóorul ñàkk toog ak moom wóorul képp ka nga xamante ni bii am nga aajo wala am nga yitte boo toogee jàkkaar la moom incha allah yaakaar naa suñu borom dana la ci jàppale bu baax a baax loolu danañ ci ñëw wante balaa boobu. sëñ Omar dañ li bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yu ñuy seetaan bismillah inna allah inna waliyallah bismillah waaw ñu ngi ñu ngi ziar sa mbokki Sénégal yëpp ci jullit yi di ñaanal jàmm di ñaan suñu boroom nangu suñu koor waaw di ñaan réew mi am jàmm waaw di ñaanal àdduna bi yëpp waaw sous région bi yëpp am jàmm ci barke yonante sallallahu alayhi wasallam yàlla suñu nangu suñu koor bisimilah incha jërëjëf sëriñ Omar yaakaar naa nuyoo bi am na am na am na solo euh, tey di jouru jouru julli e, ñu ñu ñu ñu ñëw e, ziar si la ban yëg-yëg nga ci am. moo kontante rek waaw di sant bu baax di la sant bu baax a baax di sant suñu cameraman bi vraiment yéen sant na amul seen fay daal waaw di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawfeex ak taysiir ci barke yonent sallallahu alayhi wasallam macha allah. naa ko sànq suñu borom dogal nga yëngu ci wàllu ñaan. ku ne xam ne nag fu mu toll nii réew mi dafa bëri ay ñaan kan ku jóg rek daanaka ne damay ñaan mais yow yow lan moo la dugal ci wàllu ñaan loo donn la wala loo tarbiyewu la ba ba ba ba ba ba ba xam ko mën ko euh, wala affaire yi nu mu la dikki waaw loolu dama ciy sawar a tontu loolu am na lu ma fekk am na lu ma dolli waaw loo xam ne dama ko gëstu yi waaw waaye man sama à 100 pour cent sama naturel moom am na lu ma fekk ndax sama papa daana yëngu ci mbir moom sama maam bi jur suma yaay ci sama côté yaay it sama sama boo xam ne nii moom yàlla ko baddi lool lool sax baddi sax laay wax ndax lu mos aaw waaw ki jur suma yaay ki ko jur waaw moom sëñ ma paatee ko yoroon moo taxoon moom ak may laamoon ak baddi daal laamoon moom ndax lu mu waxoon yàlla yàlla def ko lu mu ñaanu su borom su borom def ko man nag damaa dikk sukkandiku ma ci loolu ensemble bu dama dikk gëstu ji ma nit ndax boo xoolee parcours vingt vingt trois ans yoo xam ne dama ko gëstu waaw ba tey jii li ma xam yëpp dama ko li ëpp dama ko dama ko gëstu waaw xam-xam moom dañ naa koy doonu sax waaye li ëpp solo mooy gëstu ba daal xam-xam daal da nga koy jàng daal waaw li ma jot a xam moom li ci ëpp ko jàngi sama bopp ci naa ci fu nag dem naa ci sous-région dem naa fu ne pour wut fi xam-xam waaw kon génn nga réew mi ngir ngir ngir wute xam waaw génn naa réew mi ndax yàlla dogal na newoon naa dem naa gaam Gambie def naa fa huit ans jóge Gambie dugg dugg naa Guinée Guinée moom yàgguma fa Mali tamit ay dem ak dikk lay doon waaw dem Mauritanie jamono yi weesu rek dama naa Gabon dem yokkuwaat encore xam-xam ndax xam-xam dafa bokkul waaw ndax gàngaam moo am côté côté Gabon ak mbirum fooy xam nga loolu it bokkut xam-xam ba wax bokkut ak wute naa xam-xamu Sénégal waaye yàlla dogal na it yooyu yëpp gëstu nañ ci ba am ci loolu ca jot a xam waaw ngir dimbali jaam ñi kese waaw man moom jaam ñi am jàmm rek moom moo ma ñor waaw kon mën nañu wax ne dëkk yi nga jot a dem yëpp fu ci nekk am na loo fa jële waaw am na lu fa jële ndax Mauritanie am dafa jaxasoog tukulóor yi jaxasoog saraxule yi waaw naar yi waaw te ku nekk am na yàlla may xam-xam yooyu bu nekk am na lu ma ci am na jot a am daal kon kon kon mën na mën mën nañu wax ne daal dëkk yi nga jot dem yëpp am na loo fa jële mais tey su ma su ma la doon ñaan ci ban fànn ngay nga nga gën a yëngu ci wàllu ñaan. waaw li ëpp solo li ci ëpp nag ci mbiram faj. waaw mbiram faj daal ku mel ni ku jinne jàpp wala ku rab jàpp waaw loolu ma ci yëngu bu baax a baax ak mbiram xëccoo maanaam lu ñaar ñuy xëccoo loolu la ci yëngu bu baax a baax ak mbiram suuf waaw loolu la ci yëngu bu baax waaw xëccoo suuf ak xëccoo ndam waaw yéen comme saa yéen mbër yeeg ñu mel noonu. waaw dama leen di faral di defali ñaan bu baax a baax ca it kon ci yàlla boole lépp lu ci man luñ ci man dan la koy teel a wax résultat bu ci nar a amit it dan la koy teel a leeral bala ñu coo sot kon ñaan ci làmb dama ci ñaan ñaan bu baax a baax man sama papa moo daa ñaanal boo ñaan booy ñaan mi ngay dégg nii papa yi bu seex ñaan waaw ah, ak léy ñaan ay ñoom booy juuf ñu ñëpp sama papa moo leen daa ngemb ci kër gu mag waaw waaw moo tax loolu lu ma fekk la ca yéemuma yëmuma foofu rek ma ne dama ci am lu ma ci gëstu yi waaw ba am ci lu ma ci xam. suñ toll nii ñaan yi ñaan gi ngay ñaan ci làmb am na mbër na mbër yoo ciy jëflante. waaw tuuti tuuti rek du mbër yëpp nag waaye nag tuuti tuuti quoi ndax it maanaam parfois damay faral di tayal affaire médiation maanaam di ko wax ci télé wala di ko wax ci yeneen réseaux sociaux yi ndax bu boobaa dan naan ñëpp a yem ca waxuma ñu bëri ci côté boobu waaye maa ngi ciy sant ndax it ñu bëri ñu ngi ñëw waaw li am solo daal mooy jëf. jëf lu leer moom moo am solo waaw ci suñu borom ñu ngi ciy suturaal ndax ñu ngi ci jot a jëflanteel moom wax dëgg yàlla sant na bu baax. mais mais tey mbër mu mbër mu mbër mu am combat dem ba ci jouru làmb ji ñu ñu ñu jàpp ko ci sëriñ ñu maanaam ñu ñu jekku ko euh, est-ce que est-ce que loolu mën nga ko. non mën naa ko dindi automatiquement kee su ma diggee ci làmb ji danaa kee day day daan wala dañ koy daan ah? waaw kun ci jàpp mystiquement su ma jàkkaarloo yow da ngay xam ne lan laa jàpp te kun ci jàpp mën naa ko tëjal waaw. yow tey mu mu mu yàlla dogal. ñu boole yàlla boole ñu. su ko neexee ñu jubóo de moom bu ma jox fukki dërëm. ba mu am victoire am sax maa fay. waaw man noonu laay ñaanee. kon ngaa assuré sa bopp. non la ma assuré sama bopp ci côté boobu. xam ñaan li ci am solo mooy. mbir mi loo xam nga mbirum da koy teg ci taabal ji daal. ndax jangam osé wu ma laal nga may fay. yooyu it bul osé ne su ma ma li ma bëgg ne la joxaama sama xaalis. léegi nag xaalis boobu man la temps ma koy mu dugg sama poste déedéet téye ko ba nga gis résultat nga soog ma fay waaw. kon boo doon boo doon ñaanal mbër ko naan téyel li nga yor ba ma ñaanal la ba nga gis li ma la wax. nga soog fay. waaw même sarax yi maa ko gën a sama bopp. wóoluwul boppam du ko. benn fukki dërëm doomu ko avance li li maam bu yàlla dogalee ñu juboo moom li nga téye téye ko suñ paree nga fay boo demee ba gis sa fi ba ne victoire moom bu ko defee nga. taxale moom man sànq da wax lu doy waar danga ne boo duggee ci làmb boo jàkkaarloog ñaari mbër yi di nga xam kan moo ciy daan waaw ndax loolu kabul loolu la tugaloo di woyee kabul pël pël mooy kabul gi nga kon yeew ku ne bu ma jàkkaarloo dama koy gis dama koy xam bu baax ndax man ci côté ba dama koo jàng bu baax ndax mbiram loolu lu ñuul la quoi xam-xamu fas xam-xamu takk waaw loolu ci xeetu pël yi ñoom ñoo la koy jàngal waaw loolu nag dama ko maîtriser moom dama ko mën à 100 pour cent waaw ndax dama yàgg ci seen biir waaw xam naa ko bu baax moo tax ku téye mystiquement rek su ma jàkkaarloo dama koy xam. te duñ ko mën a dindi. dama koy automatiquement. maa mais am na sëriñ wëlbati ko joxaat kooku ndam est-ce que. waaw non dëpp victoire parfois day am waaye nag dëpp victoire yi du nekkul à 100 pour cent parfois nga tenté loolu mu mu réussir parfois nga tenté ko du si réussir waaw waaye nag moom avant nga dugg ci combat bi moom bu ñu jëfee li ñu war a jëf moom dama lay teel a wax sa résultat waaw loolu moom lu ma leer la waaw. làmb làmb dafa doy waar de mu mel ni ñaan ci làmb tamit yombul. non yombul yombul xam nga jamono ji ñaan encore yombutul ndax léegi waxkat yi dañoo bëri maa dafa bëri waaye nag yàlla yàlla defal jàmm daal ba ba ba ñiy dégg-dégg bi ku ci yàlla boole ñun rek ca it képp ku may jëflanteel ba ba loolu weesu ragaluma nga taxawaat ci média yi wax ne sëñ Diouf léegi lii laa seqal ak moom waaw ndax lépp lépp lu may def. àdduna may déglu de lépp lu may def dama koy teg ci yoon ndax li nga may fay moom laay dundal sama njaboot te sama njaboot bu ma leen dundale lu sawara exact waaw ndax it képp ku def safaan wala nga wax a wax wax ba li la xaalis jàmbur jàppal ne loolu riba la ca sawar lay doon sa njaboot waaw loolu lu mat a bàyyi xel la waaw. wax nga ci wàllu faj faj ci ban ci ban jàpp wala ku rab. moom yàlla mi ngi defal lu lu lu jéggi dayoo loolu yàlla rek moo man moom moo mën a faj moo mën a wéral waaye nag yàlla war nañ ci yoonu wér waaw ku jinne jàpp ku nitu guddi jàpp ku dof ci rab jàpp dof loola kon danga koy faj kun liggéey liggéey bi dof loola loolu moom ci fayeeku dara ba nga ba nga wér nga soog a fay man sooy mbir képp ku may jëflanteel bul ma jox fekk dërëm ba nga am sa résultat nga soog maa fay waaw du ma laaj avance du ma ko laaj du ma ko du ma ko du ko laaj dara su ma ko fajee ba wér nag moom bu ko defee dana ma fay sama sama alal waaw. waaw ab sëyit mbirum dama ci yëngu bu baax a baax sëy bu mu dama ci yëngu bu baax a baax sëy boo xam ne parfois rab xam nga rab day dugg dugg diggante sëy ak sëy waaw loolu parfois rab da koy dugg jaxase ko comprends nga ba nekk ba du neex wala déggoo ba du am. waaw bu yàlla dogalee ne ñu jëflante moom loolu yëpp day day lijjanti ko bu soobee yàlla. faru rab lañ waaw faru rab da koy def faru rab da koy def xam nga jigéen parfois day nekk ak àndandoo boo xam ne bu ko bëggee à 100 pour cent du bàyyi mu sëy heure bu amee néegu bu duggee négocier rek dafay commencé jaxase rien que jëkkëram pour ñu am problème waaw wala bu fekkee dugal ci néegam sëy mu saboté ko ba kenn ku ku maanaam li naan dafa day xaw am problème mu dépression ku ko gis du ko bëgg. ndax loolu rab da koy def ak jinne waaw. waaw ci mbirum góor waaw day am coro rab loolu da nga koy yëg maanaam bu la jàppee doo mën a am jabar wala boo amee jabar pour nga nekk ak moom problème lay doon wala parfois mu jàpp sa sakara di wàññi wala parfois mu mu indi la faiblesse yooyu koy saafara waaw. wàllu ngóor dama ci ci yëngu dama ci yëngu bu baax wàllu ngóoram moom. loolu day naa moom bi ma ko jotee sax à 100 yàggul. waaw ndax gamoo laa ko indaale wallaahi. waaw boobu moom boobu li ngi laay ñoo koy def waaw boobu day yokk en même temps day yokk physiquement waaw waaw boobu moom. loolu moom lu wér la moom. waay ñu yooyu moom ñi ma ko jox bëri na lool. waaw cay bu soob yàlla fekk jamono yi néew naa dem Abu Dhabi su ma ñëwee daal la mbir mi bi gën a leer bu soob yàlla bu neexee yàlla suñu borom daal li yor moom lu wér la. yoruñu tappale yoruñu tricas waaw yoruñu pour lu neex wax lu neex nit ñi déedéet li muy wax yàlla su moom lañ ci seet ndaxit it man lii maa man lii fekk mënoo ci dara loolu moom du ma ko def waaw ca it li ma yàlla dénk dama ci ñaan yàlla su borom jaamu ci yàlla su borom deuxièmement def ci loo xam ne ëllëg kenn du ci yab sama njaboot wala kenn du ma ci yab waaw wala mu mu am problème mu euh, sëy euh, bu ci yow nga koy saafara da koy saafara ci anam bu wér. waaw am na fooy toll duñ la jox looy naan ndax looy naan moom danger la quoi ndax it li ci ëpp xeetu dépense lay doon waaw waaye nag lu ñuy def lu def sa jëmm lay doon te bu nga ko defee da nga xam ne li newoon ceew yow dañ na yàlla xam na loolu. du ko jox lu muy naan lu ñuy dindi ci moom la képp su ma ko dindi da xam ne lii moo dañ ci moom. exemple loolu lan. waaw cëfal li tukuloo di woy cëfal da cee am maam xeetu mocc moo ci nekk ak loo xam ne da koy def la la kalawoon mbir ma génn moom ba mu xam ne lii génn na noo du delluwaat delluwaat ndax loolu rab rek moo koy def waaw te bu deñee ci kàttanu yàlla moom day nekkaat à cent pour cent am na ñoo xam ne dañuy dem ba benn instant loolu moo leen di wàcceeb lal dañuy dem ba télé fekk nag ñu naan lekk gi du façon lekk gi de loolu rab àndandoo rek moo koy def rab rek moo koy def rab rek moo koy def. li ñuy wax li ñuy wax takk xala xanaa loolu takk xala moom dama ci ñaan dama koy def dama koy dindi takk xala moom takk xala moom dama koy def dama koy dindi. waaw waaw. moom boo ci doon ñëwoon par exemple koo faram-fàccee mooy lan. non takk xala rek fas la rek. tey jii pourtant ay wujj ñuy wujjee sax dañ koy defante waaw ñuy sax dañ koy defante moo tax eh, góor gu ne war nga taxaw bi sigma waaw waroo bàyyi sa bopp ndax da ngay gis ku ñuy wujjee borom jabar yu bari yi comme ça da gis kenn dem takk takkal la ko xala da ko ci frigo heure boo ayee fee doo mën dara yëpp moo tax yëpp concentré sa bopp daal ndax nit ki moo amul lu may boppam waaw. Mhm. dama koy def dama koy dindi damay def kànnaar en même temps dama koy dindi. kànnaar mooy góor gi jàpp su fekkee soxna si nangul sëy wala yu meloon noonu ko ba mu déggal ko bu fekkee ku jigéen ki encore contrairement téye góor gi encore ba lu mu bëgg ci am. waaw pour lii neexal ak sëy la daal waaw loolu dama koy waaw waaw loolu dama koy def moom xam na ne fi mu toll nii réew mi yëngul ci digg wàllu politique wax nga ko sànq dangay ñaan ci wàllu xëccoo réew mi yëngu na ci wàllu politique diggante Macky Sall ak ki nga xamante ne bii moom mooy Ousmane Sonko fan yii jàppal Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang Macky Sall en tant que citoyen waaye en tant que mara ba nga xamante ne bii da ñaan ci wàllu euh, xëccoo. ban jàngat nga ci def ak noo ko gisee. waaw ëllëgu Ousmane Sonko ak ëllëgu Macky moom dama ci am tiitaange ndax xam nga àdduna moom li olof naan ku yoddu sëqët ndax moom moom su ma doon ñi ko jege wala kàddu gi bu ku fekkee da koy dégg moom na wàññi wax ji waaw sëgg ci liggéey ndax liggéey rek mooy fay wax bëriwul njëriñ wax kese amul benn njëriñ li am solo mooy nit ki na jëf waaw ndax jëf moom mooy lépp. waaw waaw nag moom moom wax dëgg yàlla mu ngi liggéey mu ngi liggéey bu baax. mais Sonko boo ko exactement ndax jëf am solo ndax boo xoolee mairie Ziguinchor bi nga koy joxee léegi jamono ay manifestation yu du jeex ca loolu tey jii bu concentré ci mairie boobu liggéey la mu war a liggéey sénégalais dafu ñu mën xam lii intérêt réew mi ñi arrangé réew mi ñoom danañ ko ñoom ñoo gën a xam waaw waaye nag topp di mbelmbel yi wax comme ça ba indi sañ ba problème di yëngal réew mi loolu amul benn njëriñ waaw ah, moom daal non Macky moom ñii ngi ci tiit ci kawam waaye liggéey moom moo koy wallu ndax Macky wax ji lu ne mën nga ko wax nit loo ko bañ bañ waxal ko ay qualité waaw ndax liggéey na liggéey na pour cent waaw moo tax ak lu mën a xew rek nit kii la mu liggéey rek moom moom la yàlla moom la ko yàllay fay li mu liggéey ci réew mi loolu moo koy wallu rek waaw moom moom tiiru ci boppam benn yoon ndax xam na ne dafa liggéey waaw. waaw moom xam naa ko moom. ko doon conseil tey da nga ko doon koy conseil man su ma moom man su ma sañoon sax moom du wàcc réew mi liggéey ba mag. ne APR nga sax waaye dama xam ne day liggéey ko xam nga wax gis nga gis nga kii ñuy xëcc pour jox ko ko xamuñu lu muy indi ca ñoom seen intérêt kese lañ fi nekkal politicien moom dana wax a wax ba yéeg ci kaw waaye bu xasee yéeg moom fàtte lépp ndax mag yi noonu la fi nekkee woon bi fi laayaa di nekk moom waxoon daf def tout pour pour bi mu yéegee xoolal ko nit ñi commencé wax na wàcc ak na wàcc waaye moom mu ngi liggéey ak lu mën a xew rek mu ngi liggéey ndax Sénégal jamono ñu toll ku génn sous-région bi xam ne Sénégal moom mu ngi ci waaw ku génn réew mi ndax Gabon moo ëpp moo gën a riis Sénégal waaye ba fa duggoon da nga yéemu ci yàlla yoon yu baax dara amu fa kenn ñi ma dox wax président bi ray la da lay rey sax moom Sénégal nag moom loo neex wax démocratie la nekk. toog jël sa téléphone def live wax lu la neex président. ku ko def Gabon ñu rey la. ñu nekk nga wax yaa ma ñu ngi may dégg ku ko fa def président jëlul lañ ci bu la jëlee lan lay faat yàlla xam na loolu. Ah, sëñ bi ah, ah loolu mu yéeme na ah loo ci mën a dégg daal am nañ mbégte ci euh, jotaay bi nga xamante ne bii am nañ kook yow macha allah suñ borom suñ borom suñ borom euh, may la waaw der bu dëgg. waaw mbiram tul yi dañ ci yëngu bu baax a baax tul waaw tul ak kaaraange bàyyi man dañ ko dañ ci yëngu waaw. protection ak mbubb boo xam ne pour mbër la moom. waaw mbër xam nga mbër day cat da koy topp parfois waaw yëre gilet waa faaru mbaam boo xam ne boo ko yoree moom moom cat du la yàqal fii mbër yu bëri fi nekk ni ñi ngi am yenn tolof tolof cat moo leen jàpp xam nga di veille ci combat pour am am na veille ci à 100 pour cent ba fàtte sa bopp encore musiba la am na ci moom bu moo xam ne moom fekk yaa ngi koy porté ci suuru làmb ji moom bët yeeg tur yeeg lépp mënu ci yow dara mucc rek ngay def ci kàttanu yàlla su borom waaye yow na nga koy def. bala la laaj làmb ji su fekkonte ne bii am na xale boo gis jàpp ne kii ëllëg mën na nekk roi des arènes ëllëg mën na téye làmb bi ko kan la. waaw non jamono jii moom. ki koy à 100 pour cent mooy Lac de waaw loolu moom ci ba. waxee nag. <laughs> sëñ bi taxawal Lac de Guiers ay kombaam day yéex ba pare te li day match lu tax nga ne mooy téye. non Lac de Guiers bu bu ma am. bu ma jotoon moom naa ko wax sara boo xam ne bu ko defoon léegi mu jot jot ci couronne bi ca bu ci jotee du ko gaaw a joxe ca gëm naa ne moom mooy moom mooy sël mbër moo xam ne moo koy téye ba jóge ba bàyyi ko ca du ko joxe lu leer laa lay wax la dëggeer ci boppam non ma wax ko lu leer lu mel midi ca li ma ko waxee loolu la yàllay def bu soobee yàlla ca leen koy defal it loolu la yàllay def waaw ko daal laa fi gis moom mën na téye roi bi ca dana yàgg ak moom lool waaw waaw ci li ko li tax mu décroché mu war a mu décroché jot na ci ba pare parce que fii mooy Leewtoo TV ci li tax war ko décroché pour mu jot ci sarax ab sarax moom la war a def sarax ma bu ko defee léegi mu am phase boo xam ne nii léegi mu jaar ci pour mën a nekk roi des arènes waaye nii nii moom moom foog mu def foog mu jóg ci loolu ndax bu jógu ci loolu day gën a day gën a day dañ koy gën a sàggante dama am day gën a dugg ci saako bi dugg ci saako bi sax waxin la rek maanaam waaye day gën a sori encore couronne bi ce da ce war a jot lu mu. su mën di dégg da mbër mu naqaree daan la. non day doon waare ndax maanaam dafa am ñaan yu yu doy waar yoo xam ne dafa nekk ci moom ñaanu sarif dafa nekk ci moom ñaanu waalo waalo nekk ci moom ce ñoo ñoo moom ñaan waaw sarif nekk ci moom ñaanu waalo waalo nekk ci moom ca ñoom ñoo moom ñaan waaw loolu moom ma leeral ko nit ñi. sëñ bi eh, waxtaan bi neex na trop lan ngay tàggatoo. non di leen nuyu vraiment yooyu di la sant di la gërëm. sama waaw di la tax yow yow yàllaa ñu boole. non gis wane nga ko bu. sama soppee nga maa la soppal sama bopp. di wan wane nga ko maam di sant ñëpp rek di sant Modou Wade di sant ñëpp di sant uh, Soxna Bintu uh, France jabar Ibrahima Mbaye Ibrahima Mbaye nekk sama nit ku baax sama taalibe sama lépp la kooku sama doom sama lépp la daal jamono yee weesu bi mu ñëwee donc ay millions la may ay millions la ma jox parce que yonent sallallahu alayhi wasallam waxuma pour média comme ça yàlla seer na ma ay millions la ma jox même pas vingt jours waaw kooku awma fayam ak famille mbay yëpp waaw kumba ceeb ak ñëpp maam bàyyuma kenn di sant nag sama sama rak mel ni Baye Diouf ak Ibrahima kii Ibrahima Diouf ak sëriñ Kewaan Diouf magam di sant sama soxna yëpp nag di sant suma yaay sama yaay nag moom mooy sama sëriñ waaw man moom sama yaay mooy sama sëriñ waaw di sant ak sa waaw yooyu di la sant bu baax rek naka saa yekkoon di sant Yamar Thiam sëriñ daaru waaw kuy lim jum daal sant naa ñëpp di sëñ Amsatu sëñ Amsatu Gay waaw comme sëñ sëñ Abdoulaye la kooku sama xarit la moom it sama wóllare waaw di sant sëñ seexu naa moom sëñ sëñ la moom waaw dëgg waaw sëñ Aafee jolof mënut a wax nag xam nga wax moom dañuy am compréhension bi rek waaw waaye moom dong nga daara moom mënut a wax wallaahi baax na jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mbokk yi kooku moom mooy Serigne Omar Diouf borom léppay baax wax naa leen ko sànq di borom xam-xam ba nga xamante ne bii fii mu toog nag jógu fi nekkul mara yi nga xamante ne bii dañoo topp réseaux sociaux yi rek waaw mi dama koo bett sax jël si ko bokk nag mara yi nga xamante ne bii dañ lay woo ne la kaay jël suñu interview ngir ñu wax ngir ñu mën ñoo gis man maa caméra ñëw jël jël si ko interview te bi may ñëw sax xamu ci dara waaw mi ngi noonu numéro bi. numéro bi 77 577 22 46 77 577 22 46 benn numéro Mourtani bi 0 euh, maam 00 222 48 07 31 10 boobu mooy numéro Mourtani bi waaw waaw 00 222 48 07 31 10. moom mooy numéro Mourtani bi numéro Sénégal bi 77 577 22 46 waaw macha allah vraiment kontaan ngi noonu contact yaa ngi noonu yaakaar naa képp ka nga xamante ne bii yittewoo nga ko rek boo jokkoo ak moom ci yooyu incha allah daa nga daa daa ak moom mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen dig daje incha allah beneen yoon wante di leen wax ne Jurbel am na ay làmb parce que suba Papa Ndiaye tëgg na làmb gannaaw suba Ousmane Naar tëgg na làmb wante incha allah. gannaawaati suba fële ca Pataar tamit am na làmb incha allah Leewtoo TV dana leen toppal làmb yooyu wante bu leen fàtte diggante Queens ak Lac Rose combat bu mag la diggante Eumeu seen Junior ak ki nga xamante ne bii mooy Serigne Ndiaye numéro de combat bu mag la incha allah Leewtoo TV dana leen ko toppal franc ak ki nga xamante ne bii mooy fo la dara du leen ci rëcc jaajëfal na leen di leen dig daje incha allah beneen yoon ak beneen waxtaan fii ci Leewtoo TV jaa ngeen